génnewaat kay comme que sax ñoo ngi ko doon génne mais gën kaa beesalaat yooyu noonu préparé ko xam ne école bi moo ngi tijji rek dañ ko ñu ngi ko ñoo ngi ko doon commencé ñoo ngi ko commencé nañ ko depuis école tëjee dañ commencé nekk si révision ye yooyu noonu nga xamante ne bu demee ba agsi si du ñu sonal loolu waaw ubbi te jàng tey loolu est-ce que dina possible xaw ma ko de parce que maa ngi doon dégg ñu ne am na ay yenn kër yu doon inondé te si kii école yi lañ leen jox ñu loger fa en attendant ñuy manquant yu bëri sax billaahi parce que euh, tablement yi c'est pas suffisant ak tamit yooyu noonu jàppale waat euh, renforce kii tamit dooli waat professeurs yi pour que élèves yi seen jàng gën a mën a mucc ayib daal waaw te ñu yërëm may wax sama kii enseignant yi ne dañu yërëm xale yi parce que mooy loolu. tey contentement rek parce que ñun tamit na nam nañ suñuy xarit ah bëgg nañ leen a gis bëgg nañoo dajeeg suñ professeurs yi nga xam ne suñuy gaañ la ñu woon dina am benn moment yoo xamante ni élèves yi élèves yëpp la ah, du élève bu fort bi du élève bu faible bi dina am benn moment boo xamante ni dinañ xaw a taal ci njàng mi mooy ay huitième mois ay ay ay ay ay mois ci biir quoi loolu dañ ci xaw a taayal mais mais daal ñu ngi am mbégte contentement pour dellu lo boo xamante ni ñun élèves yi dañoo jàpp ne bu baax la mais gëw ma ne dina mën a nekk parce ñu ngi nekk ci biir nawet ñu ne dañoo war a ubbi le le le le le 7 wala le 8 octobre am na école yoo xam ne dafa fees dell ak ñax loolu moom gëw ma ne dina mën a nekk quoi gëw ma ko mën naa am nag mais yaakaaruma ne mën naa am bu amoon na ñun élèves dinañu arrangé mais gëw ma ne mën naa am parce que mënuñoo ubbi tey jàng tey bàyyeeguñ école yu bëri bu si mel ne eltam moom ña fa nekk gardien yi ñoo koy bay tout le temps en en tout moment nga xool école primaire yi bàyyeeguñ ko ku ci mel ne école